mu ngay fàttali bu baax a baax de.
maa ngi koy fàttali bu baax a baax de.
sama bopp laa njëkkee.
te sama bopp laa njëkkee.
ak ku may jox ndigal.
ak ku may jox ndigal.
ak ku may laaj ndigal.
ak ku may laaj ndigal.
di ko fàttali di ko fàttali ku ma bokkal lislaam ji.
di ko fàttali it ku ma bokkal lislaam ji.
mu seere ne ma maa ngi diine lislaam yi ci laa ne.
ñu ma seere ne diine lislaam yi ci laa ne.
te dama ko booleeg dara.
te du ma ko booleeg dara.
lu dul moom nag.
lu dul moom nag.
ba ma teg defar ba ma teg yàq.
aw ma ceeg defar aw ma ceeg yàq.
loolu ma ca dara.
doonu ma ca dara.
asalaamaaleykum.
asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. taw habu yar saq aman ki wasukum kan ana day qi asin haajilan bil bishri mahmadin hatta atuma dini nahi akana yusuf juhan tuwa wax min yaqini ada wara wutu bismi kana kasma wal adi wal habu bi am shadkin ajib muslim min hasan di muhammadin wal utaf li faqin bana subhanaka allahumma muslimin wa rahmana amin asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu wa alhamdu qadim wa atruhiya wa alhamdu qadim ya buraay man man di digg rek moo di ci laaj bi kat saa yooyu dafa laajaat kon kon xam naa ko kon mën naa yaatal kon rek kon mën naa yaatal mën naa yaatal ndax ndax ndax ndax yu bari bu amee te kenn waxut it mën na jàll maanaam maanaam maanaam nit nit ñi ni ñu ni ñu dëgmale tubaab yi da dëgmal ko dëgmal goo xamante ne ci ëpp na xamante ne kenn kenn amatut benn xalaat lu may nu tubaab bi wax rek noonu la sasla moom moo ko waxoon waxam waxam ju tiis ja da ngeen toppi aada ñi leen jiitu woon chabran bi chabra ba sax bu ñu duggoon ci paxum mbëtt sax ne loola moo mooy la xew ngeen ne loola xew topp saa bi ne ko ah xanaa ñooñu du ñuy wax misaal yi mu ne xanaa ah waxuma ñeenti ñooñu rek ah loolu waxoon na ko waxaati ne kat xeet yooyu yi ñu jiitu woon mu yoxori misaal yi danañ këpp ci seen kaw danañ këpp ci seen kaw ni bool bu bu defoon aw ñam noonu ko noonu ko sànq lañ lañ di di di këppoo ci kawam ñi ko booba nag ak ñi la mën a déedéet waaye ak doyadi alwaxaan doyadi bëgg dund dina dee te axoon kat neewoon na kat taale mu ne kama yàlla mun watar jone mi ne mi laxin ala yat yoon yéen kat da ngeen di da ngeen di métit lu ñu métit lu yëfar yi yëfar yi dafa ay coono yu bari ngir bëgg seen message jàll yéen way gëm yi ana ngeen kon te yéen te yéen kat yaakaar ngeen ñu yaakaar ndax ndax ñooñu sonn ñoom yaakaar ëllëg te yéen nee ngeen àll ngeen yaakaar maanaam Cheikh Saliou Makin Cheikh Saliou tedd moom la moo waxoon moom ne ngeen seede ne man maa ngi ci diine lislaam seede ne maa ngi ci diine lislaam daal ne lu daal ne lu dul lislaam aw ma cag defar aw ma cag yàq loolu waxoon de moom loolu waxoon loo xam ne siiw je gàtt lool tënk lool nit ñi mokk lañ ko kon kenn waru koo lënkale ak lu dul islaam kenn waru koo lënkale ak leneen lu dul islaam Seydina Omar radiyallahu anhu al-Faaruq bayna al-haqqi wal mayni radiyallahu anhu wa anna bi moom day moo ñu moo moo ñu saraxoon wutal ñu symbole boo xam ne day tàqale diggante dëgg ak neen mooy alhijra di hijratu sayyidina nabina muhammad alayhi salaatu wasalaam bi alayhi gàddaayam nga de moom xamsatul tunaa faaruq la ci diggante kufru ak imaan kon foofu kon warees na koo mën a taarixal muy sumu mu ci amul sumu taarix ma ne Sidna Omar day ku civilisé woon la ku wax ku amoon culture bu yaatu la ku ko xamoon la yu bari ndax dawlu islam yi bii moo ko moo ko moo moo ko moo ko tabax ci état islamique bi ñu mu tëdd kon kooka kon xam nañu lépp lu lu lu dagana jéggaani jéggaani na ko indi ko ci islaam da ca dëgganut mu teg ko fee kon bu daga noonu kon kon ci pas-pas li taarix yi symbolisé maa ngi wax démb kenn naa ko naa ko marathon ndax xam nga loolu firi marathon alif laam miim qad ghulibat Ruum bi Perse yi gañee gañee na- nasaraan yi muy Rome yi muy Italie yi tey maanaam ba yéefar yi nag ca Makka di ñaawal jullit ñi naa leen yéen de yi- ñi gëmut yàlla gañe nañ ñi gëm ñi gëm yàlla yàlla ne min baadi xale bi seex yi gudd ñooñee day mooy mooy mooy saa yi danañ gañe persi yi pibidan si ñun at yu néew rek noonu noonu noonu la la ko dañu gisee nga xamante ne nga xamante ne marathon moom nag ba perse ba ba nasaraan yi gañee perse yi marathon jógee ca front bay daw di daw ngir bëgg a xa- xabaar si xew-xew ba gañaa gañaay la ba mu agsee ne gañe nañ daal ne këpp da daanu ci ci ci faatu ngir coono ba di di gaa yi di di ko feetal daw boobu gis mbooloo moomu di daw di àndandoo ñaan marathon la seen seen seen góor googee doon seen wàjjoojee doon doon yëgle si doon xibaar si ngañaay la moom moom la ñuy màggal doon ñëpp ngay màggal te ba bowuñu xel ne fàtte nañ ko borom xam-xam ne xam naa ñoom it ñoo xaw a naag ba marathon ak peer problème demal sax ca che che che che olympique yi seen sawara woowee nga xam ne moom la ñuy taal di ko ko ubbee kii ba muy tàkk di tàkk ba yi fay jeex lo- loola sawara wañ daa jaamu la nga xam ne nga xam ne nga xam ne kufrook ilhaat moom la ñuy màggal gaa yi ànd ànd ca muy wër gox yi nga xam ne ku ko ku ko aaye ko nekk sawara wa dana tàkk di wër foofa mu jógee ci fam mu jógee ci fañ ko fam fa sawara wa mujj tàkkee ba ci yow nga xamante ni kufru bu la ñuy wax kufru bu ñu ngi wax gaa yi borom xam-xam yi xooluñu ko ñoo ñoo dañ ay ay sew sew la yoo xam ne day mel ne borom xam-xam yi xooluñu ko te te kat borom borom xam-xam yi kat ñoo ñoo ñu ko jàngal ñoo ñu ko jàngal ba noppi daa mel ne ñoom fàtte nañ ko seetlu rek bu jigéen ju neex baat mokkale alxuraan borom xam-xam yi jullit ñi bu jaaw kàngam yi toog di ko diglu bay jooy bay jooy loolu la ñu waxoon ne suñu Cheikh Gane Fatma moo waxoon ne ko benn rakkam sàngam ku taar woon am am ku ko seen ci donga yi mag ñi daal di yuuxu mu mu ñëwee leen mu mu ne ñu ne dafa daanu mu mu ne addee da da koo napp rek lu am solo loolu lu am solo loolu lu am solo nga xam ne tàqee diggante dëgg ak fen waaye fi ñu toll mag ñaa nga noonu kilifa yi dañu toog di diglu ndax ndaw si muy jàng baat ba di jeexetal ci ñoom ba ñuy jooy fekk na seetaan na képp la waaw loolu si mu Seex Muhammadu Murtada waxoon ñu ne diw sàngam ci géwél yooyu di wax ci rajo yi di wax na nan naan ay jigéen ñu ñëwoon di siyaare si mu naan ñu jigéen seen sëñ bi xool leen sëñ bi ne ko àddi yëre sax soxna yi jàmbur kenn du leen xool dëgg waaw gis gis nga de ma mag ñu baax ñoom si si si yu kon waree su ko waree su ko màggalal di ko date ci weeru masa bi nga xam ne moom neewoon na man lu dul lislaam aw ma ci defar aw ma aw ma ci ci yàq man dama caa neutre ndax neutre gi it lu leer nañ ñi la alxuraan la lakum diinu kum wali diin yéen day am ngeen diine man am naa diine sama yoon nekku ci ndax qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun wala ana abidun maa abattum wala antum abidun maa abud wala ana abidun maa abattum wala antum abidun maa abud lakum diinukum waliya diin lu man di am yéen du du ma jaamu li ngeen di jaamu yéen du ngeen jaamu li ngeen jaamu kon kay jeex na lakum diinukum waliya diin waaye sëñ bi loolu leer na de loolu leer na loolu leer na kon ku mel ne seen si Cheikh Saliou borom xam-xam yi nag amuñu borom xam-xam yi dañoo it ñàkk gi tax ba duñ wax dara ñàkk gi manto yi ba mu taqale koo manto yi xam-xam ak manto yi sëriñ ba mu taqale koo borom borom xam-xam ne fee sëriñ ne fee sëriñ ba la ñu jox milliards ya borom xam-xam ba la ñuy laaj masala ya sama ko borom xam-xam ba bu waxee ma- ma- masala yi daanaka du daanaka do do do am solo benn waaye damaa wax ne ma bu kiimtaane benn jàngalkat ne ma ne ma ne ma së- sëñ kii ah xaw ma si nan nan ma ko waxante woon ne ma ne ma benn waaye da da koo laaj ne ko as ndaw da koo laaj ne ko waaw luy suganke nee na ma ne ko ma ne ko lu tax a di ko laaj mu ne mu mu ne mu ne woykat boobu kat day woy soxnaam ba ne bu bu doon góor mu ne su su su suganke la. wa- sëñ boobu daal ne ah man de yow jaxal ma mun bañ a dalee waxtu saw ba tey jii kenn xamu ko. tey waykat bi wax ko rek ci ay waxam rek ñëpp bëgg koo xam mu ne waaw ku mënoon a jël ci waykat yu siiw yi tëgg leen ci am penc ñu ñu ñu woote ñu ñu way ba noppi borom xam-xam ba soo ba wax de kon de kon xamaat na baax waaye waaye waaye nag jéegi ji am mooy ne boo waxee du jàll ndax la ngay wax nga jëf ji weddi woon na ko bu yàgg introduction ba nga dé- ba nga def doon na ko dañoo nekk njaarim di waxtaan suna jox saawa guddi nii am ay gars yi tëggkat yi jigéen ñi ñoo fa ñuy fecc ka nangam mu ne gars yi nañ bàyyi waxtaan bi waxtaan bi amu- amatul njëriñ ñu ngi tëgg ba ci biir bas bi bas bi ne tàngal ñu lool jigéen ñi néew ba ne kon kay amatul njëriñ ñu ngoog yëf yaa ngoog borom xam-xam yi këruñu seen bopp waaw tey nag tey nag it nag wax dëgg yàlla nag li li leen war ñoom jombul ña ngi ciy jéem dara xanaa kay sëriñ si kay ñoom la ñuy wax së- sëriñ si sëriñ si kay ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoom dëgg tigi tigi tigi la war aar aar islam aar islam ñëpp la war sax waaye ñi yàlla jox doole ji ñu- ñu- ñoom la war tigi tigi tigi danañ waxtaan ci mbirum saar insha allahu taala dañ koo bëgg a def waxtaan woo xam ne jàngkat yi français yi sax tubaab yi sax ñoom it danañ ca dégg lu yees mën naa am wala da wala bokk seen xel dana xaar jàngkat yi daara yi nag ñoom ñoom laa koy gën a jubale di walee ndax ndax ñoom jombul maîtrise wuñ concept yi yi tubaab yi di créer di ko jàllale ci média bi ak journaliste yi nga xam ne seen seen seen xam-xam ci lislaam daa yatuut ba luñ dégg ci tubaab bi fukk ko kon bi wax si jalo kenn kenn kenn waru ko màggale ci yooyu moom léegi lislaam rek la lu lu lu lu dul lislaam amu ci defar amu ci yàq may it man foofu laa ne si parce que yee nekk ba fekk borom bi subhanahu wa taala
julli di tey ak seen ñàkk fulla xale yi jàng ni yore seen kayit di dem ci école yi koo ci laaj 24 xam na ko koo ci laaj janvier xam na ko ascension pentecôte pâques toussaint xam nañ li ko waral ak fan la ci addu koo ci laaj tabaski lu koy waral xamu ko korite lu koy waral xamu ko gàmmo tamxarit kastu rajab nisfu shaabaan leetul qadar xanaa événement yi bi ci am lekk ba sa kor lu fees rek moo leen koy fàttali ko waaye événement bi suuxalu leen du yàgg mukk ba nga gis ba si gàmmo catholique yi jënd xar di ko rend ngir màggal Seydina Muhammad doo ko gis abadan wala lii tam xarit la ñu ngi génn dem di yalwaan ci kër julli di wala ay ashora naka catholique yi doo ko gis mukk 24 julli di 31 ñooy dem jënd cadeau yi ay papa noël ay père noël ana fan la ñu jëm ummatu muhammad nen moo gën a tuuti nen 31 wala 24 boo ko toggee jox ko sa njaboot ngir ñu gëggu ci bés bi lépp lu wàccoon ci kaw Seydina Muhammad weddi nga ko lépp loo jëfaloon yàlla màbb na boo demee ci marché yi ñu ngi jënd cadeau yi rek lu tee bésu tamxarit tey ñu jënd cadeau jox ko seen njaboot lu tee korite ñu jënd ay cadeau ay oto ay roppalaan di ko jox xale ngir ñu xam bés boobu bési lan la di maslaa bi ñu maase la loolu ban diina la ñu ne dialogue nañu dialogue diggante jullit ak yéefe jullit lan la suñu aljuma duñ ko noppal seen dimanche la ñuy noppal suñu tabaski benn bés suñu tamxarit benn bés ana lan la lan la ñuy ma maslaat ñi gën a néew jël nañu lépp lii wax bi foog mu am lu neex doomi aadama yi nañ ko def li sëñ Tuubaa waxoon rek lam axaf aduwan walam arju sadiqan zimaami bi yadillah yaakaaruma xarit bu may dimbale ragaluma noonu bu may lor sama nos ko maa ngi ko teg ci loxo yàlla lu mu dogal ci man gërëm naa ko
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله وهاب يا رزاق يا ملك يفتح وهب يا واسكن بجانا لكن عاجلا ببشي محمد هاي حضراتكم الجميع كما يسر جوعي توبا وحمني مقنا أذى وراء وتريد لي نسمة تعالى كسرعا والآدي وهب يا مسائكم يو مسكنا أدي وسلم سلم حسن دي محمد وتبلي فايقون بعنا سبحان ربك رب العالمين سلام حرام سيدنا ورحمة الله آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi ñu siyaare ñëpp waa Abdul Xadim waa Alioune Badara Xadima ñëpp ñu ngi leen di siyaare siyaare bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan yàlla dafa ñu tawfeex xam naa di di fàttali li waat waxtaan woo xam ni sax defoon nañ ko sax yaakaar naa daaw fàttali naa ko waaye jot naa ko mooy xew-xew yi nga xam ne mi ngi doon bëgg nga ñëw waaw yaakaar naa yaakaar naa weesu ko defar naa mooy mooy vingt quatre. 24 mën na mën naa am yaakaar naa wisu ko wisu ko mën naa am 24 ak 31 waaw décembre yooyu ak ak avril ñu ñu waxtaan ca ñu waxtaan ca rek tuuti pàtti leen pàtti leen dëgg man man li jëmbur sax noonu waxee mën naa waxoon naa ko waaye muudu moom bu bu dee génne ko gis na ko bu dee wax ok moom mën naa am kon du du jël kiyaat loola loola mooy 24 ji li ci jiitu 24 moom date boobu sax nasaraan yi di wax ne ci Seydina Isa gane àdduna am na ci borom xam-xam yi maanaam borom xam-xam yi yi def mu xam su addiyaanu am na ñu wax ni wérgu waaw gërëm ginnaaw bi bi lañ ko créé ñoom saa ni ñoom ñoom seen pirax yi dëppoo wuñ ci boo demee boo demee ci kanisa al al al sharqiya al sharqiya boobu nga xam ne moo nekk Égypte ak arménie ak yooyu boo bokkuñu catholique yi fet nu ngi fete waaw ñoom seen ñoom ñoom seen dat yi ko jox bokkut waaye loolu loolu ñu yittiluñ dëgg-dëgg la ñu yittal dëgg-dëgg mooy. signification bi waaw signification bi bi nga xamante ne moom lay moom lay moom moom lay joxe vingt quatre ñoom nasaraan yi taala law ama yasifun na wala may taxe saabi saaxibatan ci wala wala daal moom nee na nee na wutuma soxna wutuma doom ñoom nag ñoom nag ñoom nag nasaraan dañ ne taala law ama yasifun ne yàlla ne ne suñu borom taala amay si woon dafa am soxna taala amay si woon dafa am doom doom je nag taala amay si woon ma nga juddu ci le 24 décembre taala amay si woon ñu ne kat 31 décembre ci lañ koy ngénte taala la amay si woon loola kon saaga wuree noonu nit mënta dégg lu ko gën a rëy ci koo xam ne dangaa gëm suñu borom muy allah waaw allahu xam ne moom kenn la qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad waaw koo xam ne nga gëm nga loolu boo ca defee dara boo ca jàngee alxuraan wala nga woote ci ab conférence wala nga tàngal ca meew wala nga togg ca dara dara dara dara ngir jegaleel ko bis ba loola kufurun ba waax la kufurun ba waax la ndax képp ko saaga yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxuma yàlla de yonent bi koo xam ne saaga nga ko génn nga ci di ci di ne yàlla moom waxi noppi lay doon waaw am na ñoo xam ne ne dañu lay toone ne ne dañuy togg dara te téye ko seen nu nu nu nu njaboot waaye dama ne sànq ay xale yu suba wala bëccëg xale yu ma waxal may leen may leen may leen bis boobu maanaam léegi dañoo war a sax teel a tëdd far waaw ko ko ko gone yoo xam ne da da ngeen ci am nga téye da ngay teel tëdd teel teel tëdd fay lamp ya fay lamp ya forcé leen ci ñu tëdd ñoom waaw waaw loola loola loola kon ndax yëg gi rek ne bis bi te teel rek maanaa maanaa for maanaa jombe la loolu ko kon nga xam ne mooy 24 ba moom mooy 31 ba yàlla nañ yàlla nañ suñu borom boole ci ñi ñi ñi nga xam ne dañuy fàtte am nga maanaam maanaam xades ba waaw événement ba duñ ko sax yëg nañ ne am na ci suñu xol ak ci suñu xel ak ak ci suñu làmmiñ loola bu amee noonee boo amee dëkkandoo nasaraan bu toggee nga lax wala ñam wala gato jox la ko bu dee ci réew mi ñu togg nga lax di ko joxe nga lax la xaraam naa lekk maa uhilla bihi li xayri la dëgganut ndax kooka kooka misaal mu gàtt rek ku la saaga woon ndey mbaa bàyyi ba noppi jën tàngal ne la damay màggale saaga wi tàngal ji ndax danga ko lekk ndax danga ko jël sax loola loola moom loola moom yaakaar naa leer na xanaa tubaab yi lu ñu ëpp ëpp doole nag xanaa nag ëpp ñu ñu doole nag ba nag ne force nga nga jël gâteau bi nag xanaa nag waaw loolu loolu loolu bu doon sax maanaam doole ji daa ëpp lool xanaa ne dañuy ñëw gàññu ne faw faw nga jël ko nañu ko amee woon ca Andalus ca Espagne ba ba tubaab yi génne jullit ña ña ña fa dëkk ñu ñu ne faaw nga faaw nga faaw nga jël maanaam léegi baam xoo yokk def ko ca kër ba nga xam ne yow nasaan nga faaw nga na boo dikkee ñu jot tam jullit nga ñu jox la sàngara bokk na ñu xam ne jullit nga ñu ñu ñu rey la xeet yu yu mel noonu ñu wut ay croix di ko takk ci ci ci seen bunti kër kër yi loolee xanaa noonu tël nag xanaa aguñu nag waaw ko kon nag su su su boobaa ku la jox gàttu nag nga ne ko ah man kat ab jurit la waaw loolu am solo la rawatina gaa yi di nekk ci tubaab bi tubaab bi képp tubaab bu la jox gàttu wala jox la cadeau bu man di doon ca 24 bi ak ci 31 bi nga ne ko ah jéggal ma nag man kat ab jurit la loola dana def ci moom dara. loola moom mu xam big na ci moo xam met na ci loolu yow moo la war nga xamante ne kon kon kon moom def ci conférence rek ngir ci ngir maanaam fukki fukki ko gone yi wala gatuñu gone yi loolu lépp dat ba nga ko datee ca bis ba moo baaxut waaw woote jëm day yëre cant ak dara loola moom date ba moo baaxut jàng ci alxuraan ak dara loola date ko ci bis ba moo baaxul loola loolu lu mat a ba xel la xeex bi rëy na lool lool lool lool lool lool lool boo xamante ne buñ ci ci bayu wut xel ah maanaam maa de walan tarda anka yahudu wala nasaara xata tattabi'a millatahum wala si subila subila te kat aay bi dafa dafa mel ne dàqun ne jullit ñi mën nañoo dem for ba bàyyi seen diine ji topp topp ñooñu yàlla bu bu mu am kon nag kon nag mi ngoog bu dee ci ci ca kat wala ci avril ba weeru weeru avril ba loola moom moom it ku ci agsi weer woowu weer woowu moom it tubaab yi dañoo wax ne bisimilah dañoo wax ne fenn wi gën a màgg mooy ñu ne kat am na yonent sàngam jublu ci sina moom salaatu alayhi salaam juddu na ci weer woowu ñoo loolu loolu moom open la wala subila nga xamante ne ñoom nag tubaab bi ne ginnaaw loo am na nag kon ñoom léegi daganal nañ ne ku fen ci weer wa sunu rajo yi réew mii rajo yi bu ne da da ngay gis ñaan poisson da xuma dafa ko xuma nga xam noonu ko tuddee dañ koy wax nga xam ne léegi nga gis benn waaye daal di wax open daal di fen ne kat naa ne ne daal di sangam kar faatu na te te te faatuwul te te te xamul ne kooka moom kon moom day daal di ànd ak tubaab yi nga xamante ne nee ñu kat fenn bi gën a rëy mooy nangam te loola te loola maanaam tudd gi donc ëpp na ci noonu nga xamante ne te te nekkoon daal nekkoon loo tax kon fen dagan ci weer woowu nga xam ne gis nga ni ko ni maanaam li ñu tuddee al inekaas acharte yi xam-xam boo xam ne Imaam Xasali ko génne woon théorie boobu ku ñuy wax Pavlov di ab riif yi saxal ko mën a expérimenté ko nga xam ne soo bëggee nit bañ dara lëkkale ko lëkkale ko ak lu mu bañ boo bëggee ubbee nit bëgg dara lëkkale ko lu mu bëgg mooy xam-xam bu sew nga xamante ne kon ñu bàyyi ci ci xel ne lu rëy rëy rëy la fa yàlla lu rëy rëy la fa yàlla yàlla ñu yàlla boole tax weex defal jullit ñi ñu nekk ku benn aaral ñu suñ diine ji may ñu nag ñu am culture bu yaatu ci ci ci suñ diine ji ak diine yeneen ya ak culture yeneen ya ba mën a sàmm suñ diine ji salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh